waaw onze billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim yéen mbokk internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen di leen di jaajëfal bu baax baax tey nag ñu ngi fii Samba Dia boo waxee Samba Dia wax làmb ki ñu fekk fekk nag bëgg waxtaan ak moom moom mooy Pa Elias Elias Astin di champion def lu ne si làmb ji bàyyi na bërëmee ba tey mu ngi si làmb ji boo ko gisee nii dafa nekk ci organisation mbapat ci lañ ko fekk fasiyene waxtaan ak mom nak ci li nga xamantene mom moy carrière am ci lamb ji fi mu duggé ci lamb ba fi mu bayé lamb ak li tax mu téla a parce que gaay yi loolu lañ gis mais bala ñoo gëna xoo ci waxtaan bi dañ koy nuyu di nuyu wa kër gi yëpp wa di leen di sante aussi té nit ñu dalalé jox ñu ñu lekk jox ñu adaya di contane ci ñom bu baax baax di nuyu grand bi ñu fekk grand saaku momadou Astin di bëggé wa kër gi yëpp di bëggé wa sambaaji ak li ko wër Pa ilias nuyu nañ la. Lamine ma ngi leen di fay quoi. Mhm. di rafetlu seen teewaay fii eh, di nuyu mboolem notable bu nekk si dëkk bi di nuyu waa dëkk bi yëpp di nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu ñëpp daal maa ngi nuyu dëkk bi yépp waa nuyoo bi nag maa ngi ciy jiital sama yaay di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax waaw. donc noonu bu ñu ñëwee pour waxtaan ak Paa ci làmb. mais avant loolu dañ koy njëkk laaj paa avant moo dugg si làmb ji dugg na école wala duggul école fan la yem si njàng mi avant làmb ji aussi ban métier la la doon pratiquer balaa moo dugg si làmb. waaw man jàng naa école CM2 laa bàyyee. Mhm. waaw à part ji nag moom. Mhm. vraiment métier business laa doon def. Mhm. waaw loolu rek laa def comme métier quoi business aussi mos naa jàng ay yeneen métier quoi ay vulgarisateur yooyu yëpp jàng naa ko. am si ay diplôme yooyu yëpp jàng naa ko mais daal li ma gën a pratiquer mooy business bi quoi loolu laa gën a pratiquer te si laa nekk ba instant yi si laa nekk nii. business bi maanaam business mooy la jënd jaay wala. waaw jënd jaay jënd jaay jënd jaay waaw si loolu laa nekk jënd jaay aussi waaw nekk waaw. mu affaire vulganisateur ak bi mu wax pa kañ la jël décision ne day day bëre lan moo ko dugal ci làmb ak nan la si duggee. waaw dañ doon nekk fii di bëre wantu ay mbapat ay affaire yooyu comme ça heure bii bu jotoon mbapat yu ndaw yi am nii ñuy dem di bëre wantu ay affaire yooyu xam nga rek ñu dem ba leer ñu ne comme lii nii ñu ngi koy def nii di koy foyee te xam nañ ne mën nañ ko rek war nañ mën a nekk mbër quoi. Mm-hmm. waaw te gars yi aussi di doon doon loo ne war ngeen mën a nekk mbër. Mm-hmm. waaw loolu moo ñu dugal daal mm-hmm. mais pas aussi nekk doomu artiste suñu papa Mbaye Astin ñuy ñaan yàlla yàlla yërëm ko fa mu nekk xare ko àjjana pas nekk doomu artiste mul wëy wala mu defi leneen mais daa choisir làmb est-ce que moom bi muy choisir di bëre parents yi d'accordoon nañ pour mu doon mbër. waaw bëre moom instant man parce que mën naa la ne sam bëre sam papa fekkee aussi dara. Mhm. maa ngi koy ñaanal fam tëdd tey yal na ko gënal fi mu jóge yal na ko yàlla yërëm te xaari ko ajana parce que ñun moom li nekk si ñun mën nañ ne kenn defu ko si ñun ku dul suñu papa parce que mosuñ dem fenn fii lañ passé suñ lépp mosuñ fanaan Dakar sax xam fenn daal mosuñ fa dem dakaar bu ñu fa demee sax regroupement équipe nationale moo ñu fa yóbbu mais dakaar mosuñ fa dem ñun suñ lépp fii lañ ko defee yaroo suñ papa mais yàlla def na nag fekkewul suñ bëri parce que sama ba mën naa la ne 2005 la gaañu. te man presque mën naa la ne 2006 laa commencé bëri 2010 kenn daanu ma. waaw. léegi dinañ ñëw si loolu li ko dalee 2006 ba 2010 mais mais na pour waaw maire bi d' accord si woon cent pour cent quoi parce que xam nga rek yaa ma gën a xam maire bi moom d' accord si woon quoi vraiment maire bi parce que daf ma doon wax bëre dafa métti mhm. te aussi sa papa dundatul ay affaire yooyu moom maire bi moom d' accord si woon quoi vraiment. léegi noo def ba convaincre grand yi si jàpp wala yow yaa forcé rek ba mu mujj laa bàyyi. waaw maa ngi si woon aussi grand yi jàpp si xam ne tam mooy loolu xam ne kii li muy def nii mën na ko te jaral na ko te bëgg na ko grand yi jàpp si bu baax a baax ak nijaay yi ak ñëpp jàpp si quoi waaw. donc noonu la demee mais mun nañoo xam à part mbappatu Samba Dia yi pa ban dëkk la njëkk a jógee Samba boot saakam na tey damay dem bëri ji ban dëkk la woon. wa man sam Premier lamb bi ma njëkk dugg bari lamb ndangaan la ndangaan ñu and ak suñu ben grand ñu koy ma ngoy nuyu au passage muy grand Ablaye Ba mu boole ñu ñun ñëpp yóbbu ñu ñun ñom dawda Saarin consorin ñun ñëpp ñu dem fofu bëre ji poussière yalla def ma dem si poussière bi ba demi final jour bobu sama Premier takk ngembu demi final si lamb demi final poussière la daanu ndangaan mais bobu nak fekk na mom kulum bapat simple yi nekk fii mbapat yi nga xamne boy mom lañ doon bari mhm. dekk yeb ma jël ko be ken mënatuma daan ci mbapat yi mom mhm. du ngoy mhm. du sambaja du faajaal amul mbapat bu ma fi jëlul du aussi ay jof yor yeb seen mbapat yi dama ko jël waaw mais sama premier double lamb mom ndangaan la pousser ñu nekkon plus de 100 120 liter lañ won suma ma ma dem be demi final ma daanu jour bobu demi final la daanu jour bobu premier ngem dugusi lamb léegi bi nga joge ndangan ñew gis nga réante nga sa bi morom ba egg demi final instant bobu nga commencé entraînement bi ak sa yenen gaay num doon démé wa instant yi dama ñew gëna motivé wu rek gëna yok entraînement yi. di and ak gaay ñuy dem entraînement bu ma ñibsee aussi may entraînement aussi di xam nga rek gëna yok affaire yi lepp lo xamne duma ko ci doon def ma di ko def waaw be yalla def Samba ja am làmb mooy sama deuxième tak ngam ma bëri fi poussière jël ko. jël ko si Aliou Sanou bu Palmarin maa ngi koy nuyu au passage sama gaañ la Aliou Sanou Seck sama premier drapeau poussière fii Samba Dia si moom laa ko jëlee mais avant poussière boobu nag année boobu noonu def naa finali poids lourd maag daara ji maa ngi ko de maa ngi ko defee yaayam finali poids lourd maag daara ji te fekk na boobu mhm. Samba nag tëggagul si année bala sàmba Dia tëgg ma def raw ma def poussière jël ko si Aliou Sane mais sama première finale làmb bi ma njëkk a def poids lourd laa ko defee. Mhm. yaayam mhm. maag daara ji. boobu jëlagoo poussière jëlagoo raw ga du finale poids lourd. non boobu ga jour bi ñuy dem sax dañ dox ma ànd ak booy yi. Mhm. dem ma bëre fa poids lourd final fa maag daara ji. waaw. bi nga ñëwee Samba sa biir dëkk nekk à domicile lamb ji dëgg jël poussière bi. instant boobu moment yooyu nan ngeen ko dundee yow ak sa supporters yi ak waa kër gi. waaw instant yooyu moom vraiment vraiment dund nañ ko parce que instant yooyu dañ demoon ba si poussière bi ñoom grand yëpp taxaw jàpp xam ne. Mhm. man mooy instant yi man maa taxaw des. Mhm. parce que gars yi demoon nañ ba ñi fi nekkoon gars yëpp a daanu woon jour boobu ñu ngemb woon fii ay waa Samba Dia ñëpp la gars yi daan Aliou Sanu daan gars yëpp may daan fii muy daan fii ñu dem ba egg final. Mhm. waaw ah, may jël ko gars yi kontaan trop yi jàpp si grand yi jàpp si ñoom Zak gars yi jàpp si. ñoom grand Ibuloo gars yi jàpp si ma jël poussière yi bi ma ko jëlee gars yi kontaan trop nag si lañ neen voilà sawaay mooy loolu fi mu nekk nii moom taxaw na pour doon bër quoi. en ma gën a motivé wu jóge Samba ñu dem Boyar si poussière ya ñu nekk ay prix de cent trente mbër. ma jël ko aussi daan fa Moussa Yande demi final daan fa beneen booy waa Joal final jël ko. waaw Moussa Yande sama mbër ah. waaw Moussa Yande sama mbër sama gaañ la maa ngi koy nuyu au passage bëri nañ lu bëri nag ma ak moom. waaw si gën a yaatal. léegi nga dem Boyard jël ko ci ci même année bi après nga jàll fan. après ma jàll ma jàll lul seeseen après lul seeseen ma jàll si kaw. fu ma dem daal dama ko jël mun naa la ne poussière moom. Mhm. fu ma demoon rek dama ko jël quoi. Mhm. parce que dama jël dama jël dama jël poussière yi Samba Dia. Mhm. ñu dem Boyard ma jël ko. jóge Boyard ñu dem loolu seeseen ma jël ko mhm. aussi si laa bàyyi poussière foog naa yaa mhm. si même année bi nag si même année bi aussi si laa bëree poids léger mhm. jëlaat ko si Aliou Sanou finaalu waat finaalu waat ak Aliou Sanou fi Fimela daje gaskel quart de finale mu may ma ma daan fa ñu bëri ñu ma fa daan daan fa Amadou Moundé demi finale jël ko waat si Aliou Sanou poids léger foofu mu laa première nag foofu laa ko amee jour boobu Fimela waaw léegi comme ni ma koy waxee mu doon la nga xamante ne aussi c'est une réalité gars bu ñu nekkee si làmb ji képp ku si jëlagul nag dangay mel ni góor bu duggagul néegu góor nga jël nag bi keroog yëg ne léegi mbër nga ndax xam naa loolu lay demee mais bi nga ñëwee ak waa kër gi ba takk nag bi loolu nu mu demee woon pa Ah, bi ma yegsee gars yi kontaan nañ mais jaaxalu leen quoi parce que ñoom xam nañ xam nañ ne sawaay moom nekkatul ay nag mais mën na jël leneen la doon nag sax quoi. Uh-huh. waaw mais kontaan nañ trop bi ma ñëwee nit ñi kontaan nañ dëkk bi ñëpp di ñëw di xool si nag bi kontaan trop. Uh-huh. te aussi li si ëpp làmb ji li ma si gën a neex ñëpp dañ joge woon Samba dem seetaani ñu uh-huh. ñu jóge fi waa Samba Dia yëpp ngemb ñu dem di bëri yàlla def may ma ba ma finaalu ko jël ko. aussi loolu sans nak bi sax ndam gënu ko rëy quoi waaw mais nag bi moom bi ma ko jëlee jour boobu ñëpp kontaanoon nañ ñëpp mais man jaaxaluma woon quoi parce que man xam waaw war nga waaw waaw parce que li nekk man instant yooyu quoi xam naa ko bu baax a baax mais moment boobu yaa naan da nga doon dem si ay lamb jël ko boo ñëwee gën a motivé wu ñu gis ne pa ba tey ni mu toll amon pa ni mu tawee woon na yeneen wax ñeneen ñoo ñu ngi fi doon bëre pas moo si gënoon ndaw mais pas moo ci gënoon ës pas lan mooy secret bi si biir gars yi mu imposé wu moom ba génn si kaw doon mbëru Samba Dia bi parce que noonu lañ ko mën a waxee. gëm-gëm rek. parce que man moom man noonu laa mel quoi man lépp lu ma nekk te gëw ma ko dama koy bàyyi. bu ñuy toog di waxtaan sax te gëw ma ne ñun ñaar war nañ mën a nekk gaañ damay arrêté waxtaan boobu. Mhm. waaw amoon gëm-gëm bi. am fulla bi am fayda bi am fit bi. Mhm. parce que man mën naa la ne daawuma daawuma génn suñ kër sax nit mosul di dox ba dajeeg man parce que man benn jiko sax yoroon naa ko boo nekkoon mbër ma nekk mbër sax maak yow duñ mun a composé waaw parce que loolu man noonu mun réalité boobu moo nekkoon si man instant yooyu quoi waaw gàtt tànk respecté samay entraînement waaw te aussi gëw ma woon ne nit dinay ragal quoi man moo taxoon lu mu am si làmb ma am ko. Eh, waaw gëw ma woon ne nit dina war a mën a ragal pour man nit du ragal dara man loolu laa gëmoon ko waaw. donc loolu bu ko waxee aussi dañ koy gëm parce que boo gisee nu mu toll wala nu mu toll woon ci ci ci gabar yi ak li ma doon def si làmb ji da leer da lay leer ne kii gëm-gëm ak fit moo ko doon mooy li mu doon am léegi pas bi mu jógee poussière ñëw raaw ga duñu dem étape par étape. ñan la fekk foofu ci raawkat bi ban génération. waaw par exemple man mën naa la ne daal deux mille deux mille deux mille quatre deux mille cinq. Mhm. deux mille cinq la sam papa gaañu. deux mille six deux mil sept deux mille huit. Mhm. ma commencé dugg si làmb ji. Mhm. deux mille neuf. si laa nekk si poussière yi topp. 2010 ma yéeg raw gaadu tam nekk fa top 2010 ma fekk fa raw gaadu fekkante fa ak ñoom Yankuba ñoom Moussa Yande ñoom Aliou Sanou bëri na fii daal gars yi ñoom Nokia Ndangaan bëri na gars yi ma fi fekkante raw gaadu ay ñoom ñoom bu Jiloor waa ñooñ laa fi tombeel génération quoi ak ay ñoom Baba Ndew Joal ay ñoom Sàcc Mbay waaw gaa yooyu laa fi tombé raw gadu ak ay waa jilaas ñoom kii yin waa jilaas yu bari ñoom moddoli yin mhm. waaw gaa yooyu laa fi tombé raw gadu quoi. mu nekkoon génération bu bëri ay champion ñi nga lim noonu mais man damay commencé ci sama mbër Moussa Yande Fall ah. ma koy nuyu bu baax di nuyu waa kër ga yëpp ak Moussa Yande combat bi nu mu doon demee. Ah, sama doom ndey la maa ngi koy nuyu au passage barke démb rek ñu ngi déggante. Mhm. man man sax. li mu bëggoon ah. liñ jot a passé si lamb ah, du may am envie sax di toog di koy nettali quoi. <laughs> mais ay ay waxtaan la rek ay revenir parce que am na ña nga xamante ne soxla nañ ñu pas revenir ci li nga xamante ne moom mooy carrière am mais yow ak Moussa Yandé. waaw sa waay bëri nañ bëri nañ lu bëri mais yàlla da doon def moom yàlla daf ma doon may ndam chaque jour si kaam moom. Mhm. parce que dem nañ dakaar mhm. bëri nañ Dakar quart de finale ma daan ko combat bu amul deux secondes yàlla def na daal bëri nañ su ma juumul. Mhm. bëri nañ trois fois parce que poussière mhm. laa ko njëkk a daan boyaar ñu jóge boyaar ñu dem Fatick ñu teg fa ñaari nag ma jël ko si moom ñu jóge Fatick ñu ñëw Joal mhm. Joal ba aussi xam nga rek gars yi dañ indi woon ay problème mais terewul ni mu doon demee rek la demee waat mhm. ñu dem Dakar aussi mu demee waat noonu rek waaw maa ngi koy nuyu au passage nag xam nga rek léegi yooyu yëpp yaa ko ko daan waaw waaw yàlla daf ma doon may ndam si kawam ko <laughs> léegi boo foofu boo génnee Moussa yànde Aliou sali Aliou sali Seck nekkoon aussi mbër ba nga xamante ne yéen ñett yooyu li nekkoon seen particularité mooy da ngeen ndawoon comme ni ñu ko waxee tolluloon woon ñi yeneen mbër ñi mais da ngeen mënoon bëre aussi yaa ak Aliou Saly Seck nu mu doon demee. waaw Aliou maa ngi koy nuyu au passage. Mhm. sama gaañ la. ñëw na sama ceet fii amul lu mu fi deful sama doomu ndey la. waaw sama gaañ la maa ngi koy nuy au passage. parce que mooy man li ma la wax rek. man vraiment vraiment tey li ma passé si la ah, ma bëggu may toog sax di koy nettaliku quoi. Aliou. bëri nañ bëri yu bëree bëree bëree bëri. waaw. parce que mën naa la ne sama première drapeau si moom laa ko jëlee sama première nag si moom laa ko jëlee. aussi jël naa si moom làmb Kobangoy. jifir aussi beure nañ fa xam nga rek beure bi taxu suuf mo mu daan ma sax mo mo ma daan jifir mhm. ñu jóge fa ñew ñëw kobangoy final poids lourd ma daan mhm. waaw man suma joomul beure nañ 3 fois ma daan ko 3 mu daan ma ben ko wa suma joomul wa 4 fois lañ beure mhm. ma daan ko 3 yi mu daan ma ben parce que jël ci mom pousser samba ja ñu samba ja aussi dem fimla fogg na ma jël ci mom drapeau fofu nak fimla ñu joggé jóge la aussi ñok ko bongoy mhm. ma jël ci mom poids lourd final foofu waaw foog naa su ma juumul daal mhm. loolu laa jàpp quoi ok yaa tuddu wa tuddu ko bongoy suñu dëkk ni ñuy nuyu ko bongoy 1 ko bongoy 2 ko bongoy séeréer yépp ñu ngi leen di nuyu wa ak li wër Samba Dia commune Fimela bi yépp bu ñu limee dañuy am ni ñu bay ci biir mais bala ñoo genn palmarin combat sok <laughs> fa Ilias si kalam kalam foo leen daje woon si géew xiiroo beeg ŋaayoo bi lan la woon. waaw mais xam nga rek Sidi moom Sidi presque ñoom Sidi. soo xoolee si at moom moo ñu xawoon mag mais ñun ñoo ko jiitu si làmb. ñun ko jiitu si làmb combat yi amoon na tension trop suñ combat. parce que moom suma ma juumul nañ trois fois. mais man benn yoon laa ko mos a daan foog naa jiloor laa ko daanee woon jour boobu Lamine Koura moo arbitré combat bi day dox di wër sax ma ne ko gaawal nga ñëw ma daan la. ñu jóge foofu ñu demaat jiloor ñu bëriwaat fa demi final mu daan ma ñu jóge foofu ñu ñëwaat yaayam ñu bëriwaat fa demi final mu génnee ma par point ñu jógewaat fa ñëwaat yaayam bëriwaat fa final poids léger mu daan ma su ma juumul loolu lañ bëre man ak moom quoi. waaw Sidi suñ combat da am tension parce que man soo ma daanoon soo ma daanoon tey suba buñ dajee man damay jàpp ne dama lay daan. te ni ma la doon attaqué noonu laa lay attaqué rek duma si teggi tànk benn yoon. parce que du ma ko gisoon si làmbu sax man su ma wàllum bopp damay bëgg ñu boole ñu man loolu laa doon bëgg heure bu ma ko gisee rek man damay bëgg ñu boole ñu quoi mhm. waaw. Palmarin nag. Mhm. foofu moom parce que ñëpp dañ doon wax sax ne su ma génnoon fii dañ ma doon wax sax ne waa Palmarin la mhm. waaw te terewul nag suñ combat maag ñoom ñi ma fa bokkal génération yëpp ay combat yu neex lañ doon bëri combat yoo xam ne. Mhm. yu neex a neex lañ doon bëri man ak ñoom vraiment. parce que dañ doon ñëw nekk dix man ma ñëw nekk man kenn kese. waaw ñuy bëri yu neex waaw. li si ëpp yàlla daf ma si doon may ndam. waaw parce que Palmarin moom. Mhm. sama dëkk la parce que li sama majeure partie samay mbokk fa lañ dëkk jël naa fa drapeau yu bëree bëri nag. Mhm. finalu naa fa poids lourd maag mhm. aussi jël naafa raw galu foog naa jël naa fa tànk mun naa ne ñetti Palmarin yëpp am naa fa ay final. finalu naa sam-sam jël naa fa drapeau ngeej finalu naafa aussi. lambu pa ambourage bu mu tegoon finalu naa waaw ñetti palmarin yëpp yàlla def na am naa fa ay drapeau yi ma am fa ay final waaw mais combat choc yi ba tey mu am keneen ka nga xamante ne boobu man dama koo seetaan Diofior la woon muy muy takasi takasi bu jiloor kooku tamit moo Pa Elias fu ñu daje woon si làmb rek dañuy mel ni xaj ak muus affaire yi fii nii jàppal bàyyi problème yi waaw Tadja Sy ñu ngi koy nuyuwaale sax au passage suñ grand bu baax la chaque jour dañuy gisee di fo di ree di kaf di ree. Mhm. mooy Tadja Sy ñu magoon jiituñu si làmb man suñ première combat man ak Tadja Sy. Mhm. seko ba la woon làmbu seko ba Diofior. daje demi final bëre fa bëre bu métti. bëre bu méttee méttee métti lañ bëre foofu man ak moom. Mhm. bëre ba sax jour boobu. su ma juumul gars yi dañ ñu mujju tirage génnee ko seko ba. Mhm. loolu moo nekk suñ première combat. suñ deuxième combat parce que dañ jóge foofu. Mhm. yàlla day def man su ma bëree woon ak nit rek dama lay xiif jiloor tëgg ma dem jiloor fekk ko fa. <laughs> ñu bëre waaw ñu bëri jiloor ba yegg demi final. Mhm. ñu bëre fa combat combat bu bëri problème xam nga rek. Mhm. combat bi dembe ba gars yi déstabiliser ma mu mujj ma daan. Mhm. ñu jóge foofu ñu ñëw yaayam aussi mun daanaat ma foofu. su ma juumul loolu lañ bëre man ak moom quoi waaw teke si sama grand la. Mhm. moo ñu mag moo ñu mag fuuf moo ñu jiitu si làmb. ñu mag fuuf moo ñu jiitu si làmb mais. bokk nañ ay drapeau quoi bokk nañ ay drapeau suñ grand la ñu ngi koy nuyu au passage. waaw. léegi pa bi mu bi yéegee li nga xamante ne moom mooy tànk aussi. fekk ki nga xamanteni mom moy ngam padjan bu zoal di soga feul fël ko aussi joge ci deug ndox yi joge jóge jor ñew fi ci arrondissement bi sonalon gaay torop sa combat yak ngam padjan fofu lañuy ñuy commencé soog a ñëw ci yanku gaa yooyu sax boo gisee maag ñom ñoo defandoo raw gaaru mhm. parce que lima lay mëna wax moy suñu raw gaaru ñun ñooñu ñep 2010 dama tejon 2010 man na la ne ken daanu ma dama ci jël plus de ay 18 raw gaaru jël ci ay lu mot ay 9 nak fu ma dem maa ko jël maa jël munde maa jël boyaar maa jël palmarin ngeej jour boobu lañ njëkk a bëre man ak Yankuba quart de finale raw gaadu ma daan ko suñ premier combat ma daan ko jóge foofu jël fii yëpp ñu gars yi jox ma convocation regroupement équipe nationale jour boobu bi may dem sax dafa ma fekk may finaalu ak kam yaag bu Jofior kam yaak Lamine ñuy finaalu jilaas ma bàyyi fa final bi mhm. gars yi ne Pailias dafa daw mhm. ma dem regroupement mhm. sélectionné wuñ ma. Mhm. ma jëlee foofu sama saak dem Fatick fekk leen fa daan ko daan Moussa Yande final jël naa gi. si laa ñib si Samba Dia sama saak fii lañ ko jëlee Samba Dia ma dajeek moom Ndios Ngom. Mhm. waaw boobu mooy sama premier regroupement fekk gars yi jóge tànn nañ ñu fii yóbbu ñu école Dior Parcelles Assainies. ñu def fa benn genre éliminatoire éliminatoire bi tam biñ ko fa defee man la fa gaa yi tànnoon defis ñu tànn ñu fa defis yóbbu ñu Thiès. Mhm. boobu maa ngi loolu loolu 2010 la raw gaadu. deux mille deux mille neuf deux mille dix. ma tesi carrément jeexal raw gàddu yëpp année boobu benn combat la gars yi doon wax ne daanu naa ko naan leer na ñii ne leerul te maag jame bu ñaning la woon ñaning la woon loolu ñaning ñu finaalu poids léger jour boobu mhm. fekk ma jóge suum jël raw gàddu yi enchaîné mhm. si guddi gi fekk ramu warang guddi la doon doon enchaîné si guddi gi ñëw warang finaalu fa maag jame si poids léger année boobu benn combat boobu laa daanu gars yi naan leer na ñii naan leeru ñu raw gàddu donc 2010 li fi nga bëre yëpp da nga jël dama ko jël mhm. dama jël boyar du boyar dama jël boyar mhm. ñew lul seeseen jëlat raw ga lu ci gonglé mhm. joggé joggé lul seeseen dem fatik jël ko joggé fatik dem Munde jël ko joggé Munde biir ndox mi fi ma fa fi ma dem dal dama ko jël ci gatal 2010 kuma ma fo ma seetaan dama ko jël fo ma seetaan dama ko jël ba ci la jël Samba ja poalé sey fi fii te boobu raw du lay def Kuma sétan dal 2010 Foma ma seetaan dama ko jël mom loolu mom assuré na ko benn combat dal lañ ci wax ne daanu naa ko leer naa ko leerul jame ñaniñ la won eh, warang waaw combat boobu kese mhm. loolu si raw gadu ñu nak ñom yankou yeen yëpp si lañ bokku bokando ben année bi raw gadu ma jël fi ñu dajé ji munde aussi ñom ñëpp ñu nekk fa ma jëlaat munde ñu joggé munde ñëwaat boyar ñun tout le monde ñu nekkaat fa ma jël ko parce que ñun moom suñu raw gaadu mhm. maximum da doon nekk cent mbër cent mbër cent dix mbër cent bu si a tuuti cent la doon doon cent rek la doon doon moom jamono yu gars yi dañoo bëri ji aussi da doon da doon da affaire da doon saturé trop mais yaak ngam waa Ngam sama gaañ la maa koy nuyu au passage sama doomu ndey la xam nga rek. mooy li la wax. fi ñu jaar ma gars yi sax damay bëgg di toog fii di koy nettali. non gars dañu parce que lamb lamb noonu la demee rek. dinaa doon daan ay nit ay nit dinañ ma doon daan. Mhm. waaw mais yàlla nag dafa def. Mhm. ñi nga xam ne dañ leen fi doon lim favori mhm. ñu doon ñàkkanteeg ñoom. kenn lamb daal mën nañ ni amuñ si tolof tolof quoi muñal mosuñ ko dégg si làmb parce que mosuñ toog saison boo xam ne ñun jëluñ ay drapeau ba saison bi nga xam ne si laa wàññee sama bëre sax mhm. dama ñëw Kobangoy jël poids lourd yi mhm. dem Fadial jël poids lourd yi mhm. dem dem combi daan fa ñoom Mamour Ñongoloor daan fa ñoom Boy daan fa gaay yëpp finaalu poids léger yi gaay yi xeex ma ma jóge combi dem mbel soob jël poids lourd yi aussi si même année boobu noonu dama tegle trois semaines yoo xam ne trois drapeaux yoo xam ne dama leen tegle jël leen mhm. waaw dama dama ñëw combi finaalu fa mhm. lamb ji jeex kobongoy di jeex ma ñëw kobongoy si même jour bi ñëw jël poids lourd yi kobongoy mhm. semaine ba del si ma dem faajaal jël poids lourd bi jógewaat fa dugg si biir àll bi mhm. jël foofu yëpp soog a ñib si mhm. ñu gis ne pas aussi daan na bëree si arrondissement naa suñu zone Petite Côte bi si île yi côté Log bi aussi pas yan jaloore la fa def ay côté Soum Thiaré Mbassis côté yooyu waaw foofu dugg naa fa quoi foofu dugg naa fa moom parce que man moom dama doon raatale Kaolack sax dugg naa fa Kaolack sax jël naa fa raw gaadu jóge foofu ñëw sum sum dama fa ñëw nekk làmb bu metti parce que boobu maa ngi soog a débuté gars yi xamuñ ma man nag sum laa dëkk sama yaay fa la samay nijaay nekk fa ñëw fa xam nga rek mu nekk lamb bu métti gars yi xamuñ ma ñu may xeex ma jël ko daan fa ñoom aso booy raki seeku bi daan fa ñëpp jël drapeau bi muy nag bu baax ma jël ko sum jóge sum dem Ndorong gaay yi xeexaat ma foofu ma ñàkk fa demi final ma jóge foofu ñëw mbam maak ñoom ñi ngee gaay yi ma jeexalaat leen foofu ñoom tout aussi <laughs> waaw foofu moom bi ma fa duggee itam mm. dama fa dama fa raatale ñëw Foundiougne aussi la même chose Foundiougne moom mm-hmm. gars yi dañ ma fa xeexoon si demi final poids léger mm-hmm. man ak man ak waa bawut la woon sax kuñ doon wax Bakary Sadj ñu joge fa ñëw ndangaan ma daan ko ñu jógewaat fa demaat Fimela ma daanaat ko biñ jógee Foundiougne waaw. mais pas daan na dugg comme ni ñu ko waxee Assainick côté Fatick bi dugg côté Niakhar si àll yooyu noonu. foofu nag daaw ma fa bëri lu bëri su ma suñ nee côté Sinig fi ma fa gën a bëri moom mooy Fatick. Mhm. parce que Fatick moom jël naa escale. Mhm. seen lamb bu mag bi Njaanjaay. Mhm. def naa fa final. deuxième année bi ma ñëw fa def di def demi final waa sax maa ko daan foofu sama loxo bi damu. foofu la sama loxo bi damoo woon waa Njaanjaay foofu noonu demi final. Mhm. maak benn gaayen bu dëkkoon Mbour ñoo fa bëri demi final. waaw mais dugg naa fa Escale jël ko Fatick. Mhm. ñëw Njaanjaay aussi def fa final ñëwaat fa. Mhm. gaañu si loxo. waaw. mais Pa Elias génération bi ñu jot waxagum nii Pa kan la si jàpp ne moom moo gën a naqaree woon a euh, génération boobu moom koo si dajaloon dafa naqare bëreel vraiment ñoom yànqu ba bëri yu méttee métti lañ doon bëree bëri yu métti ay Aliou Sanou mhm. xam nga ñooñu ku leen lim lim ay champion bëri yu métti lañ doon bëree ñoom yànqu ba ñoom Aliou Sanou parce que génération boobu ñoom Ngor Simal mhm. gaa yooyu ñoo bokkoon génération ay ñoom Moussa Touré. maa ngi leen di nuyu au passage bëre yu métti lañ doon bëre parce que lañ ay Fimela gaa yëpp daje fa ñun suñ poids rek. ku déggoon nañ poids léger ba fim ñoom Yanku yi daa Yanku yéen a final woon wala. si poids yooyu maak Yanku ñoo final woon ma non ndangaan lañ final woon. maak Yanku mais poids léger yi ngay wax nii Fimela. yi fa daje woon ñun ñëpp. man maa ko final woon maak Adama Cheikh bu mar mhm. daan fa ñoom Moussa Touré ñoom Moussa Touré bu simal waaw daan fa gaa yu bëri finalu ko maak Adama Cheikh bu mar ñu teg ñetti nag mu daan ma final loolu Fimela la woon Fimela nag nag moom mhm. mën naa la ne li ma fa am si drapeau ëpp na cinq mhm. final yi wax noppi parce que tey boo xoolee fi nekk nii Samba Dia bii ma dëkk nii arrondissement Fimela ak li ko wër yëpp. Mhm. benn dëkk laa si mënta lim ne si laa mosta jël drapeau. Mhm. te muy Baboucar te def naa fa final. Mhm. mais dëkk yi fa des yëpp ay mbiiseel yëpp jël naa fa drapeau dëkk yi ñu wër tout amul benn dëkk bu si mën a wax tey ne. Pa jëlul fii drapeau. ci loolu laa bëggoon ñëw sax parce que Pa dañoo gisoon ne. comme ni nga ko waxee arrondissement Fimela bi fii pa diggante Ndangaan Fimela ñëw Samba Dia Kobongo yi Kourou Karab bii pa bu fi doon bëre da doon mel ni ku teg bakkanam lan la woon li gars yi doon jóge biir Samba Dia seetaan si wala pa da doon bañ gars yi di jóge si yeneen dëkk yi ñëw di jël lamb yi ci zone bi lan la woon loolu. gëm-gëm la woon rek. man li ma doon def fii li ma doon def si àll bi sax du ma ko doon def si secteur bi parce que àll bi dama doon ànd man kenn bu may ñëw ay trois nag laay indi ñaana jàllo laa doon woo téléphone ñuy daje ay njoosumoon am na benn année otoom bi dam quatre cent mbar poso bi mu yoroon maa ngi koy nuyu au passage ñaana jàllo ko bu ngoy dama koy yëpp ay nag ba oto bi yàqu boo ko laajee mu wax la ko ak oto Souley Gassama aussi Souley Volvo bi mu yoroon maa ngi koy nuyu au dama ko yëpp ay nag chaque semaine woo ko téléphone kaay maa jël fii ndangaan moom seen làmb ji nga xam ne mooy seen làmb bu mag bi nga doon xam ne dañ fa doon daje drapeau bi gën a tuuti raw bi ñu fa bëree mu gën a yomb si raw gaadu yi ñu ngi nekkoon cent douze mbër te boobu la ñu waxoon ne moo gën a yomb te raw gaadu boobu man maa ko jëloon maa ngi ko jëloon si mbir bu baasul bira caare sama gaañ la maa ngi koy nuyu au moom tam foog naa ndangaan suma juumul def nañ fa ñaari final yoo xam ne yëpp maa ko jël si kaam si deuxième année balaa fa ñëw def fa poids léger ñu finaalu fa mën ak Yankou bëri fa final bañ décoré ñu. final boobu nag Yankou moomu mujjee woon na daan. ñu jóge si final boobu aussi ñu dem Palmarin lambu Pa Ambroise bi mu doon tëgg ngéej. ñu daje fa quart final ma daanaat Yankou finaalu ko ak Lamine normal bu Palmarin. Mhm. mu daan ma. waaw instant yooyu moom tembel tembel li ma lay wax ni instant yooyu moom ah. mhm. arrondissement bi ak àll bi yemoon hmm. fu ma demoon li ma doon def si àll bi sax vraiment duma ko doon def si arrondissement bi waaw hmm. te arrondissement bi tam yàlla daf ñu fi doon may ndam heure bu ñu fi génnoon hmm. suñ fi daanoo benn yoon ñaareel ba dañ koy jël waaw mais carrière u Pa aussi dafa am benn affaire boo xam ne da koo marqué muy lan histoire yi koo waxoon mu la dafa bëri histoire Pa nii ak ne Pa kuy naaw pas dóorante arrêt histoire yu bëri si biir lamb yi aussi pas loolu pourquoi loolu. Euh, loolu moom vraiment mën na ne wax la wax ne dafa nekk si ñun parce que ñun moom dëgg dëgg man mun naa la wax ne ba ma juddoo ba léegi. Hmm. mosuma tiit. Hmm. tiit moom mosuma ko def. parce que mën naa la respecté jox la cër bu nekk mais heure boo dépassé moom ñu xool na ñuy def man ak yow waaw man noonu laa mel naka jekk même làmb ji sax nee naa la man instant yi may bëree dëgg mhm. boo nekkoon mbër sax duñ seq na nga def maak yow mhm. maak yow duñ seq na nga def damay aju nga aju parce que fuñ munti dajé dañuy béré man man lool la japon parce que man dafa mhm. dama nékkone affaire bo xamné dama ci nekk wala ma bañ si nekk lool la doon wax mhm. soy and ak man sax te gëmoo li dañ ci wara a do and ak man mané la bul and ak man waaw mhm. fula bi mom dañ ko ci doon tek ba mot ce que motax nit buñu doon jaay benen affaire bu dul leneen rek dañuy yegg ak mom fenn fi quoi waaw donc non la dem mais pas Elias mën nañu xam bu saison tëjoon comme ñu nekk si digg nawet instant bi ci mois de septembre waaw nan la doon waajalee saison prochaine waaw man moom vraiment vraiment moom moom vraiment man mystique ci lamb moom dama ko doon dox quoi. Mhm. dama doon dox lamb parce que man dama demoon dama ne woon li ma nekk nii. Mhm. su ma jaralul rek naa ko bàyyi heure bi bu jotoon man. Mhm. du ma doon entraîner sax. dama doon dox lamb ba mu leer ma ne dox naa ko. ma soog a pare loolu dem di entraînement. mais làmb moom dama ko doon dox aussi dama doon tërën tërën dama ko doon def ba mu doy sëkk. waaw parce que dama doon entraîné. parce que dañ nekkoon ak suñ grand boo xam ne militaire la. daf ñu doon entraîné carrément muy Zak daf ñu doon entraîné suba di ñu entraîné ngoon. daf ñu doon gis nii sax ñu mees mais bu ñu la téyee nga xam ne góor dëgg téye na la. waaw mais saison bi moom bu tolloon fii man Paye Dias en personne duma doon entraîné. Mhm. dama doon dox lamb ba mu leer ma ne dox naa ko ba pare. Mhm. ma soog a dem defi entraînement man noonu laa doon dox waaw. Mhm. dama ko doon dox mystiquement nag mystiquement. Mhm. dama ko doon dox. dugg fi ma war a dugg dugg yëpp dama ko doon dox man nee naa la. li si ëpp sax. bëri naa fii ba bàyyi aw ma sëriñ fii mosuma am sëriñ côté bi yëpp sama sëriñ ay côté ay ñombaatu lañ nekkoon. ay sum dañuy ay boosinka maa ngi fay nuyu sax sama benn paa maa ngi koy nuyu waale au passage boosinka côté Betenti. sama ben pa bu fa nekkoon ñu koy wax gor gi Ibrahima. di walé sama nijaay au passage Ablaye sar man presque man na la ni béré na ba bay lamb suñu secteur bi yépp musuma fi am sëriñ quoi. musuma fi am sëriñ da na dem si pas Cheikh ndjay nak bu ko jeexna mais sama seringi yi dëgg moom. côté Bosinka Betenti dem sum fofu lañ nekkoon quoi. lol la kat bi di woy di nan ko defa nga mbir sax ñap gi jila sax leng o loolu ñu dégg séeréer dinañ ko comprendre donc pa loolu la doon appliqué dem ci àll bi wut fa ay sëriñ respecté mystique donc pa li may laaj gars yi boo doon classé tey entre mën a bëre mystique bi ak ak doole bi pa lan la si jiitaloon waaw man nag naka jege moom bëre. Mhm. entraînement laa jiitaloon. Mhm. teg mystique quoi parce que man dama gëmoon ne. Mhm. noo toll si àdduna suma ma yi man nga ma gën a diis mais doo ma ëpp doole mosuma dajeeg si àdduna mbër bu ma ëpp doole. da ma da may gën a diis rek mais ñu ne mbër bi jaay na palliage doole daan ko non non. Laye Ndiaye ñoo tombé génération ñu ñoo ko jiitu sax tuuti dañ doon bëre bëre yu métti man ak moom. waaw te daf ma gënoon a diis mais. mooy lool dañ doon bëre combat yu métti. maa ngi koy nuyuwaale au passage sama waay la sama gaañ la. yaa ngi laay fan ak fan bëre. nañ bëre nañ final. Hmm. bëre nañ final final poids lourd bëre nañ ko Palmarin Jaxaanoor. Hmm. mu daan ma final ñu tegoon fa ñaari nag mu am nag ma am nag. Hmm. bëri nañ ndangaan bëri nañ ndangaan mu tee dañ bëri ndangaan final mu tee. maa moom bëri nañ ndangaan aussi. je me ñaari combat yooyu lañ mës a bëri quoi waaw. comme ni ma leen koy waxee rek pa fidèle a refu a new a trop mais njob ne a refa a meen pa Ilias <laughs> mais pa man dañoo gis ne suñu suñu côté yi léegi dafa manqué ay mbër Samba Dia Ndiédieng Simon nga fa woon fii nii paa Ilias a fi woon ay Kobongoy ay ñoom Ousmane ak ñeneen gars yi ñu ngi fa woon di jéem ay Fadial ay ñoom kii a ngi fa woon nu mu tuddati jagam militaire ñoom Biram mais ay Baboucar fii ba yaayeem ay ñoom maxa mais dañoo gis ne suñu côté yi léegi dafa am pénurie mbër ba Palmarin keroog bi ñu demee seeti Babacar usine doole maa ngi koy wax paa yow nga gis ne loolu noonu rareté mbër yi fii nii ci zone bi lu waral loolu. waaw mooy instant yi rek man li may wax booy rek. Mhm. man chaque jour man bu fekkee ne sama booy nga wala gis naa la ngay yëngu si làmb. Mhm. boo si yëngu te gëmoo ko dama lay ne bàyyi ko parce que daf lay tardeel. Mhm. parce parce que dañ dañ dañuy nekk si làmb duñ duñ duñ duñ duñ def li làmb laaj quoi booy gëmatuñ làmbu amatuñ fulla amatuñ fayda te fit bi nekkatu si booy boo si gis mu lay xànjul ne mbër la moo gën a tapet parce que man chaque jour li ma leen di wax mhm. man mënoo nekk mbër te mosoo am drapeau ak koo mun munti doon ñu lay ne mun nga man damay jàpp ne munoo mm-hmm. man dama doon wax ne bu ma kenn mm-hmm. bu ñu demee sa diggi géew ga dinañ xam kuy def lu leer mm-hmm. man loolu laa doon wax gaa yi mais naan mbër laa si ay lameñ ak gémeñ booy fi mu nekk nii gëmatuñ bëre bi li bëre bi laaj defatuñ ko aussi koo si gis tey mu bëre tey suba def yeneen mbokki mbëram yi yëpp xarit mbëri yëpp ay déggante instant yi booyu ndaw yi sax bëreetuñ ndax dañuy déggante ay téléphone mhm. gëmatuñ ko quoi amatuñ fula bi amatuñ fayda bi amatuñ fit bi surtout suñ secteur bi booy gëmatuñ bëre bi amatuñ fula bi amatuñ fayda bi amatuñ fit bi mhm. donc quoi loolu la gis ne moom moo waral mbër yi gars yi yi tagatembe tembe ni gisatuñu ay mbeur ci zone bi di ñaan yalla nak mu mayat ñu yeneen champion parce que soxla nañ ko fi ni gaay dañu dund lamb ji bu baaxa baax mais mu nañu xam pa lamb yi mu beure yeb ci arrondissement bek un peu partout ci Sénégal ban lamb moko ci gëna marqué manam ban lamb moko ci gëna neex ba nga xamné jël nako mom contane torop torop torop waaw lamb yi ma ci gëna neex mom bari na mais bi ci gëna neex moy bima jël poalé ci Samba parce que damay dama dama dama instant yooyu jamono yooyu maa ngi toj àll bi te fekk depuis poussière laa gëj a bëree Samba te gars yi ñu ngi dégg ne pa mu ngi jël chaque jour bu ma ñëwee gars ñu ngi dégg pa mu ngi jël ba Samba di tëgg instant boobu sax man presque man naa la ne yoruma woon téléphone mais gars yi suma booy kuñ dajeel ndax paa day bëre tey ndax pa day bëre tey ñëpp di ñëw grand yi sax ay ñoom amadi ñaan maa ngi leen di nuyu au passage ma parce que mën naa la ni sama lambu bu weesoo samay waa kër mën naa la limal ne ay ñi si d'accordoon Samba Dia sax bëriwuñ mais dañ dem ba xam ne man la parce que dañ doon def affaire de ay favori di jàppale waate waaw mais man dama forcé woon ne man lay doon man la parce que dama mën li may def bu dul woon sumay mbokk mën naa la ni ay grand amadi ñaan ay abu senghor aussi ay Amady ñaan ay Abou Senghor ay grand Iboulo maa ngi leen di nuyuwaale au passage ñooñ ñoo fi nekkoon ñoo xam ne ñu jàpp samay làmb lañ ay Souley Gassama kooku sama doomu ndey la ñoo doon tëdd sax benn néeg ñoo doon def lépp da doon tollu Joal sax woo ma téléphone ne ma tey da ngay bëre ji te duma ko waaj sax mu taal otoom ñoo jël ma ñu bëre ji ma jël ko man mosuma waaj lamb bëre naa ba bàyyi bëre li may lekk sama yaay moo koy togg jigéen daawul dugg sama néeg si bunt bi lay toolu teg añ bi ma dugg jël ko li ma doon lekk sama yaay moo ko doon togg nit mo suma toogal ma lekk ko bari naa ba bay bëri su ma toogalul sam bopp sama yaay moo may toogal sama néeg basan laa fa la doon si basan laa doon tëdd te boobu chaque semaine dama doon jël ay drapeau boo yi may àndal laa doon bàyyi xaalis yi ñu koy téye ba mot ay trois cent mille nag yi take si biir kër gi te si basan laay tëdd Ah. loolu lan la woon ay tegtal la woon wala pas moo choisiroon di dund dund boobu. non gëm-gëm la woon rek ak li nga xam ne dañ la doon wax ne lii ak lii ak lii nga war a def. pour nga nekk ko. te man tam dama doon gëm ne dama ko war a doon loolu laay def. waaw. donc lamb sa mbaja boobu nekk à domicile nga jël ko moom mooy bi la gën a neex mais pas fan la daanu jël ba nga xamante ne moom bu nelaw ba deux heures du matin sax mu ñëw si xelam da koy métti quoi. waaw loolu moom. Mhm. Baboucar la woon quoi. Mhm. parce que Baboucar. Euh, jamono yooyu dafa am sax ay ñoo xam ne dañ fa nekkoon. supporter ay yeneen nit te supporter wuñ ma woon. Baboucar di teg nag sama booy ñoom Mohamed maa ngi koy nuyu au passage sama booy la. ñun ñoo doon tëddee di fanaan di def lépp sama booy bu baax la ñun ñoo nekkoon après Mohamed Diakhaté ñun ñoo nekkoon ay ñoom booy njaga affaire yooyu. parce que man sama làmb yëpp ay booy rek laa doon àndal. waaw tëdd ba guddi mu ne ma pa Baboucar mu ngi teg ma ne ko pourtant Baboucar mosuma ko jël nag mais ren damay jël Baboucar mhm. mu ne ma lan moo tax nga loolu ma ne ko gis naa ko mhm. te moom xam na ma ko waa man su ma ko newoon lii dama koy defi rek dama koy def mhm. parce que booy ngemb yi booy doon jël di ko bëree mbapat duñ ma bàyyi ma fen lii dinañ ko dégg booy Omar Diop ngemb bi mu doon ngemboo mbapat dama ko doon ngemboo jël lambu ngembu bi nga xamne mom la ñuy yobbu mbapat dama ko doon jël ngembu ko jël lamb parce que di len doon wonne ne du dara gem gem la dama doon tek sama ngembu jël ngembu bi nga xamne mom la ñuy beure mbapat ma ngembu ko jël lamb ji def ko du ben du ñaar mané mohammed mané ma waaw pa mané ko babukar dama koy jël ren ma pa babukar dina metti suba de ko billahi babukar dama koy jël ma beure fa daan gaay yépp amul combat bu ma fa beure bu yegg 2 minutes ma dem ba yegg final gars yi xeex ma ba noonu laa ñàkkee final bi. mu xeex la xeex la naka. xeex ma parce que dama dañ sifflé final bi maak waa ma jël ko war ko nomba waa ji déclenché mboot arbitre yi daw si ne daanu naa ma jooy. Mm-hmm. fekk waa Babacar ñoom ñoo ko doon arbitré. Mm-hmm. je ne sais pas xaw commission bi fate naa ko waa ba sax. Mm-hmm. mu nekk laas. mais bi ñu fa jógee ba dajawaat ba dajawaat ba dajawaat après xam na. waaw ban mbër la woon. laas la tuddoon Joal la nekkoon. mais combat boobu bi mu paasee Baboucar. dañ dem Fimela ñu daje troisième tour ma ak moom. mais ni ma ko naroon def Baboucar noonu laa ko def Fimela. combat boobu nag moom ma gën a métti tey parce que li tax mu métti ma. jëluma Baboucar te at boobu laa waroon jël Baboucar te Baboucar rek moo fi nekk dëkk boo xam ne tey. dinañ ko lim fii si bëre te ne Pa Elias jëlu mais def naa fa final. ok waaw. léegi Pa Elias li gars yi wax mooy. dafa teel a bàyyi bëre man aussi loolu laa wax parce que pas ñi ngay lim ni yëpp am na si ñi nga xam ne ne ñu ngi bëre ba tey say morom lañ mais pas jékki-jékki bàyyi làmb ji lu waral loolu. Oh, xam ma ñu bëri dinañ wax ne pas jeune moo ko bàyyiloo bëre ñii naan pas lii moo ko bàyyiloo bëre ñii naan pas lii moo ko bàyyiloo bëre. Mhm. mais Lamine man bëre. Mhm. bëre si boppam mosuma si am tolof tolof. Mhm. bëre mais tolof tolof bi dafa nekkoon si que. dama fi nekkoon mën li may def ñu may xeex. dem naa bi at boo xam ne. benn nit bu ma defal entraînement aw ma ko te at boobu laa gën a bëri drapeau. at boobu man kenn kese. maa nekk si benn place di entraînement di entraînement ak ay booy te at boobu laa gën a bëri drapeau. at boobu laa gën a bëri drapeau booy yi ma doon entraîner booy bi si gënoon a mag. ëpp loon soixante kilos waxuma laa ay quatre at boobu dama doon daan ay cent kilos. at boobu laa gën a bëri drapeau parce que at boobu jël naa sax ay poids lourds jël ay daw gàddu am pagaay waaw te tam aussi xam nga rek sam bi avant muy gaañu xamaloon na ma ne dinga bëre mais boo bëree tam bul si yàgg waaw mais loolu tam nekk sama xel dem naa ba samay nijaay jógee ba sum ñëw jël si ma pour ma ñëw toog foofu ngir bëre rek parce que xam nañ ne instant yi pare naa te mën naa ko mhm. ma ne leen du ma dem mhm. fii laay toog parce que dafa nekk ay affaire yoo xam ne waxoon nañ ñu ko quoi. Mhm. lii di nga ko def di nga si am lu nekk mais bul si yàgg. Mhm. waaw donc loolu moo tax Paa teel a bàyyi làmb ji. Ah, waaw mhm. xam nga rek. Paa ban at la mujjee bëri ak ban lamu la mujjee bëri. man su ma mujjee bëri at boobu lambu Kobongoy laa jël. poids lourd yi Kobongoy laa jël. jël poids lourd yi Fadial. waaw ay côté côté combi bi dem noonu si kaw ma jël fa ay poids léger jël fa ay poids lourd année boobu daal laa bàyyi bëri. Mhm. année boobu laa wàññi. Mhm. wàññi sa déwén sa bëriwuma ba nii nii daal année boobu laa wàññi quoi année boobu. ban année la woon 2012 xaw ma 2013. waaw mooy bi may jël poids lourd yi Kobango yi rek jàppatuma ban année la mais si laa jël poids lourd Kobango yi. Mhm. jël poids lourd Fadial. jël ko si Ngam Badiane poids lourd Kobango yi ma jël ko si Aliou Sanou. combi ma daanu fa final daan fa Mamour Ñongoloor demi final. daan fa membre ñongoloor daan fa beneen mbër bu dëkkoon côté boobu finaalu fa maag Boy Naar Boy Naar daan ma fa final. année boobu laa wàññi lamb nii ba nii quoi lamb moom vraiment vraiment. Mhm. mosuma si dégg muñal at bu nekk dama doon neexle at bu nekk dama doon neexle mhm. waaw. mais pas carrière gi yëpp na ñaata drapeau la am. ay mënuñ ko léegi nag yi nag gars yi dañu mën lim drapeau yi mais nag yi ñaata nag la. nag yi bëri na trop. Mhm. parce que man su ma jóomoo rek eh, instant bi may mujjé jël sama nak yi nga xamné ne moom laa won woon Samba Dia di koy yóbbu rek mhm. ëpp nañ ay chaise sans compter yi nga xam nag dama doon jël di yar si kër gi di jaay mhm. parce que man nag la doon gëna bëré man nag la bëggoon té fuma démon nak nag lay def ma jël ko mhm. amna ben ané dama yeew kër gi ay nag ba ku fi ñëw da ngay fokk ne gerte mo fi nak lool moom ñëpp seede nañ ko si dëkk bi nak yi sax dañ doon génn si buntu kër gi di doxandu fofu waaw nag moom dama ko jël ba mu doy te tey maa ngi am ay nag yoo xam ne am pagay yoo xam ne si lamb lañ jóge boo demee tey sumbel samay naga nga fa nga dem feneen samay naga nga fa yoo xam ne si lamb la jóge waaw léegi pa bàyyi na làmb ji mais ba tey mu ngi si làmb ji parce que loolu aussi dama koy rafetlu moom mi ngeen gis ni chaque at mun na organiser ñaar ba ñetti mbapat xanaa affaire yi ni mu demee nii sax ak corona bi moo tax mu wàññeeku mais mu ngi jàppale booy parce que lamb ji aussi dafa soxla loolu moom bi muy nekk xale wax na ko ci début kii bi interview bi dafa commencé ci ay mbapat di bëre ba egg fi mu egg donc ñeneen ñi fi nekk aussi mun nañ war nañoo mun a jàppale booy yu tëgg ay mbapat parce que lamb ji aussi liñ ci seetlu ren mooy gars yi dañuy tëgg ñaari drapeau te ñaari drapeau yooyu arrangé wu làmb mbër ci poussière lay jóge wala raas sax poussière raaw gaddu tànk ba poids lourd mais boo leen ko bëggee def ñaar day am décalage booy dootuñ mun a am fi ñu déparé ba egg jusqu'au bu fi ñu nekk nii tey fii Samba ja mu ngi fi organiser benn mbapat ñu koy jaajëfal ci loolu bu baax a baax mais pas léegi à part yooyu organiser mbapat ak loolu pas si lan la nekk. waaw à part organiser mbapat rek yooyu man maa ngi sama business sama liggéey aussi maa ngi béy maa ngi def lépp maa ngi samay business daal man moom maa ngi business maa ngi jënd di jaay damay jënd ay jur damay jënd ay nag même ay tool ay terrain lépp damay jënd di jaay maa ngi sama business daal à part hmm. làmb ji lu mun a gën a xaalis daal te légal yaa ngi ci. maa ngi si daal maa ngi si quoi maa ngi si maa ngi man maa ngi job quoi parce que man moom. Hmm. naka jekk loolu laa gëm quoi man loolu laa gëm quoi man loolu laa gëm. Diop laa gëm. waaw aussi maa ngi nuyuwaale suma gars yi au passage. ku si mel ni ay ñoom xaadim ñing waaw ñooñ samay lam di nuyuwaale sama grand bi nekk fële Dubaay. Mhm. waaw parce que ñooñu sama grand boobu demoon na ba bu may seetaan lamb sax day jooy. waaw parce que fu ñu demoon rek dafay gis ne damay def résultat. Mhm. nuyuwaale au gars yëpp au passage mais man moom sama lamb. Mhm. su ma la waxee dëgg sama làmb kenn jàpp si ku dul samay mag man maa taxaw ne lii dama koy doon. Mhm. appliqué ko Samba Dia mhm. bu weesoo grand yi ma lay wax nii Samba Dia kenn mënul taxaw ne la maa jàpp si làmb Pa Elias. bu dul sama famille. Mhm. ñi si ëpp sax dañ ma doon xeex. mais man dama ne woon li ma war a doon far force dama koy appliqué te loolu laay doon kenn mënu si dara te loolu laa doon. waaw. amul li nga sa tur egg na fi mu war a egg def nga lu rëy ci làmb ji aussi. se Mhm. regroupement équipe nationale. Mhm. dem naa ko trois fois yàlla moo def tukkiwu ma si rek mais trois fois dem naa ko regroupement. Mhm. problème mu poids moo doon tax tukkiwu ma mais regroupement équipe nationale. dem naa fa trois fois. te boobu sax laa la wax regroupement équipe nationale dafa métti parce que dañ leen di sélectionné fii ba pare yóbbu leen Dakar buñ leen defee yóbbee dakaar ba pare defar leen foofu présélection soog a tànnaat te yëpp dama doon xaañ fu ñu yóbbu woon dama doon xaañ. directeur bi ñu fa nekkaloon sax Abdou Badji ñoom Pa Ambourage maa ngi leen di nuyu au passage parce que Abdou Badji mhm. chaque jour daf ma doon wax ne paliage Elias mhm. jaaxal nga ma ni nga toll ak doole bi nekk si yow mhm. waaw chaque jour daf ma ko doon wax ki nga xam ne moom moo ñu doon yor foofu Thiès ay ñoom Pa Ambourage yi yëpp chaque année dama doon dem ba war a tukki mais problème mu poids moo ma doon indil ay problème té man dama imposé woné Dakar sax Dakar sax la la wax Dakar man mhm. na la ne ay 3 fois la fa dem lamb té lamb yi ma dem yëpp dama sess mhm. wéso ay ginaaw ray aussi mosna fa dem def fa final waaw Dakar aussi dama don dem heure bu ma ses mhm. waaw force dama don ses waaw légui pa mu ngi ci mbokati mais mën nañu xaar saison bi bu pa nak lamb ay millions wala tek ay 10 nak yu demé noonu pa mu ngi si projet bobu wala mom da ko na japp ci si ñaari nak ñetti nak, ba kañ non da wajon na da wajon na tege Samba Dia 2 millions mais affaire yi nim demé rek la utoon na date affaire yoy parce que ñun ñun lamb dañ ko bëgg lamb dafa nekk si ñun bay nañ lamb mais fu nekk lañuy sétani lamb ci aduna bi amul amul fenn fo xamné lamb dafa am dañuy joggé fi sétani lamb touba Toubacouta li si ñak ay 50.000 pour dem rek sétani ko fu nekk la ñuy dem di seetaani làmb si àdduna parce que làmb dafa nekk loo xam ne xëy na yàlla moo def mu nekk suñ seytaane dañuy dem si làmb yi di ko seetaani di fa dem di fay ñàkk suñ xaalis di dajeek ay mbër di leen may xaalis te yàlla yàlla yàlla def na mel na demeewul noonu sax mais dafa yàlla dafa def mu nekk suñ seytaane kon ñun luñ la ne dinañ ko def si làmb rek gëmal ne dinañ ko def te saison bii di ñëw man bu ma amee date bu baax man jël naa sama décision ma am pare ma ñàkk parrain dinaa tëgg Samba Dia lambul deux millions wala lu ko ëpp. Mhm. waaw. donc loolu waa Samba Dia gi yëpp war nañ see mun a jàpp ak li ko wër parce que loolu yaakaar naa aussi ma su mu nekk projet ba nga xamante ne moom pa mu ngi koy pour tëgg fi lamb boo xam ne deux millions lay tëgg loolu ñëpp war nañ see mun a jàpp autorités yi fi nekk yëpp bon volonté yi fi nekk jeunesse bi boo amul xaalis am nga sa doole nga ñëw jàpp si affaire yi. waa ñëpp ñëw jàpp si donc waxtaan baa ngi noonu Pa Elias ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax parce que yàgg nañ di déggante pour lii mais xëy na tey la ko yàlla defoon ñu koy kontaane bu baax di nuyu waa kër gi di nuyu waa Samba Dia ak li ko wër yëpp bu ñu limee rek dañuy juum léegi dañ koy bàyyi mu joxe soon dernier mot rek Pa Elias Adiak waaw maa ngi nuyu sama gaay yëpp au passage xam nga rek wax moom neexul bu fekkee wax naa fi loo xam ne xëy na mën na am ku muy déranger mu jégal ma. parce que ñun moom instant yi ñu nekk nii xam nga rek ku ñu xam. xam li nekk si ñun. ku ñu seqanteel dara mu xam ñun ñooy kan. waaw parce que instant yi moom xam nga rek. jombul wax dafa neexul mën naa fi wax loo xam ne day déranger nit mm-hmm. mais comme si déranger mu jégal ma maa ngi fi naa ngi nuyu au passage mm-hmm. balaa may nuyu kenn nag man damay nuyu samay mag mm-hmm. parce que man mosuma dem fen si lu ma nekk lu nekk ñoom ñoo si jàpp ba ma nekk fii ba ma nekk si quoi di nuyu njëkkee ko si grand bi nekk ci kaw sama mag la Lassi Assane maa ngi koy nuyu. Mhm. di nuyu ñoom saagu di nuyu ay Arfan Arfan aussi amul lum dajul sama làmb te sama rakk la. Arfan borom ikat. waaw ah. maa ngi koy nuyu maa ngi koy nuyu bu baax au passage sama làmb ñoom ñooñu rek ñoo ko yoroon de man samay làmb sama làmb moom samay mag ñoo ko yoroon. bu mhm. weesoo loolu di gërëm sama benn gaañ aussi Souley Gassama. di nuyu sama copin Daouda Sarr. Mhm. di nuyu aussi Khadim Ñing di ko nuyuwaale au passage di nuyu sama gaay yëpp daal di la xamal nag ne lamb yi may tëgg yëpp moom man lamb bu mu mës a tëgg moom ah budget beeg li ñu ciy ak affaire yi yëpp monsieur Doudou Diokh moo koy dépensé. Doudou Diokh borom Ofor. borom Ofor directeur des travaux Ofor. waaw mhm. ñu ngi koy nuyuwaale au passage candidat au maire tam. Mhm. di ñaan yàlla mu nekk monsieur le maire bu Fimela parce que bu ko nekkee ñun bëgguñ ci gis suñ bopp sax mais na si gox bi gis seen bopp te xam nañ ne bu ko nekkee gox bi dinañ ci gis seen bopp waaw parce que liggéey na fi lu war a tax mu mën ko doon ko waaw moom tam ñu ngi koy nuyuwaale au passage di ko ñaanal bu baax a baax candidat yi ñu jëm nii mu gañe ko cent pour cent di ñaanalaale bépp autorité boo xam ne aussi nekk nga si dëkk bi. Mhm. ñu ngi lay ñaanal di leen di leen gërëm di leen sant. Mhm. xam nga di leen xamal ne ñun aussi ñun ñu ngi si dëkk bi. Mhm. te nag mun nañ taxaw wax ne kenn mosu kenn ñu xam dëkk bi. parce que bañ juddoo ba tey mosuñu dem fenn. di leen xamal ne dëkk bi kenn gënuñu ko xam fi ñu nekk nii bañ juddoo ba tey mosuñ dem fenn Dakar sax mosuñ fa dem bokk nañ si tey si xale yi nga xam ne ñoo gën a xam dëkk bi buñ gënul xam dëkk bi kenn gënuñu ko xam waaw. ci biir loolu man damay sant di gërëm ki nga wax léegi du ma ne sama grand la sama papa la muy Doudou jox au nom de toute la population de Kobangoy séeréer laay wax parce que am nañu robine yu ñu fa def moom moo ko fa def. robinet yi bu mu njëkkee ñëw biir Kobongoy bu mag lañ ko yemale mais moom du jox moom moo ko lijjanti ba mu yëg si Kobongoy séeréer ñu koy sant ci loolu di ko gërëm di ko ñaanal yàlla li mu bëgg yàlla defal ko ko ah sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp yeneen gars yi aussi xam naa ñoom ñëpp commune bee leen ñor développement commune bi moo leen ñor mais papa moom xam nañ ne ragal féete day xañ a wërsëg moom mu ngi ci duut joox ñun moom que le gën la wax rek amul benn problème sant nañ la bu baax a baax. Euh, aussi di nuyuwaale sama maire bi au passage maire Ndeye Fatou. Mhm. moom dafa yàgg a nekk sama maire depuis bi may bëree la nekk sama maire ba tey. Mhm. yàlla def nekkatuma si bëre bi mais ñuy jànkonte si lamb ji. Mhm. di daje muy woy lu neex ay teraanga di dox suñ diggante. xam nga rek yaa ma gën a xam yow mi loolu dara ump la si. Ndeye Fatou Adama Jali fu mu wéyee waaw dara ump la si <laughs> ah, di ñaanal ñëpp aussi di ñaanal ñëpp aussi di ñaanal ñëpp yàlla def li nga xam ne moom moo gën si réew bi waaw ñëpp am jàmm daal di ñaanal ñëpp ñu am jàmm daal waaw yéen nag si liggéey bi ngeen nekk nii moom mhm. gis nañ seen liggéey bu baax a baax te yàlla dina leen gën a yóbbu si kanam ba ngeen dem ba tey ñuy wax ne fii mhm. télé Lamyn TV la mhm. fii nii place yi Lamyn TV la te yàlla dina ko def ko quoi yàlla dina ko def loolu. Mhm. parce que liggéey bi rafet na nag. Mhm. surtout ngeen di liggéey si lu nga xam ne ñun mooy suñ lépp. Mhm. muy làmb. man moom Pa Elias tey ku ma xam si làmb nga ma xamee. ku dégg sa fu ma egg tey làmb moo ma fa yeegal. waaw te ba tey làmb la ñuy dund ba keroog dootuñ ko mun quoi moom la ñuy dund. <laughs> ziar ñëpp aussi di nuyu autorités yi nekk si dëkk bi yëpp. waaw di nuyu chef de village yi di nuyu imam di nuyu ñëpp waaw. waaw. ayca kon noonu la fa demee ñun waa Lamyn TV aussi comme ni mu ko waxee ay ndaw lañ rek ñun lamb lañ am mooy suñu culture mooy suñu passion ñu ngi si nekk di def li ñu war na si ñëpp jàpp xeebuñ dara yéemuñ dara aussi jaajëf.